di ñaan yàlla mu def ñu tawfiq ak taysiir méngoo suñu mbir jotal ñu suñu borom càkkuteef ci barka Seex al Islaam Cheikh Ibrahima Niass al Kawlaxi Tijaani radiyallahu anhu ñu ngi ñëwaat suñu waxtaan ci waajal gàmmu ci xasida yi nga xamante ne Seex al Islaam moo ko tegee yonent yaama salaay salaam ci jabrul kasri mu ne laaha feeñ na a rabion weeru rabion ëwal te mooy weeru gàmmu wa zahat sori na xaniya fa man alkurabu mboolem xeeti njàqar yi mu ne rab yu ëwal du feeñee te mooy weeri gàmmu mboolem xeeti njàqare yi daf may sori dootuma jàq dootuma tiit dootuma ragal dara lépp loo xamante may gaar rek sori na ma mu ne waxaaja jeqi na nag taskaaru may fàttaleku man ka nga xam ne xaalat kawe na loxoo ñeel ko arruta bu mboolem daraja yi bàyyi mu ne radiyallahu anhu rab yi ëwal di feeñee nag day rek day dal di jeqi may fàttaleku nag ki nga xamante ne ku ci mboolem daraja yi rek te mooy yonent yàlla salaay salaam <coughs> mu ne hibbi mooy sama soppe albasiru kay aji bëgg la ci àjjana yonent bi salaay salaam mooy soppe bi nga xamante ne mooy bëgg la si àjjana mboolem jullit koo xam te ne gëm na diine lislaam gëm na yonent alayhi salaam mu ngi jëfandikoo diine lislaam rek dégg nga yonent bi mu ngi lay bëgg mu ngi lay bëggal ci àjjana de bokk na nag ci turam yi moom yonent bi al basiru mooy muhammadul basir ci turam la bokk an naziru kay aji xuppe ci safara yonent alayhi salaam mooy xupp mboolem yéefar yi rek mu ngi leen di xuppe ci safara de ba tey muhammadul nazir bokk na ci turam yi de moom yonent alayhi salaam al Moustapha kadde kuñ tànn yonent yaa ngi sarasam kuñ tànn la de waxtaane woon nañ ko ci e, waxtaan yi passé ñu ne yonent yaa ngi dañ koo tànn ci mboolem yonent yi waaye baayam itam dañ koo tànn de ci e, ay mbokkam waaye itam maam itam dañ koo tànn ci ay mbokkam de moo tax yonent sarasam dañ koo tànn wa abu abil xalaaqi mooy ki nga xamante ne mu ne kii mooy ki mooy bàyyi mbindeef yi de yonent yàlla salaay salaam mooy bàyyi mbindeef yi ndax yàlla dafa wax suñ suñ borom subhaanahu wa taala dama tibb leer gi nga xamante ne moo tax ma nekk di yàlla ma bind ci yonent bi salaay salaam tibb bi nga xamante ne ci laa bind yonent yi ma bind ci mboolem mbind mboole mboolem mbindeef yi de moo tax yonent bi mooy bàyyi mbindeef yi de te loolu la bàyyi waxoon ca wéy ba nuuruhu awalal wujooda wujoodan kooku as usulu wan an jaal yi mu ne leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy njëlbeen am ci am te mooy cosaani baay yi ak doom yi kon mbindeef yëpp ñu ngi bàyyi ko ci yonent yàlla ma sallallahu alayhi mu ne man mooy ki nga xam ne mooy ki xam ne zaalat dëñ na bii ci moom ariyebu mboolem xeeti sikki sàkk yi de seex ne sama soppe bi mooy sama soppe bi di yonent yàlla ma sallallahu alayhi kii bëgle ci àjjana di xuppe ci safara te mooy kiñ tànn mooy bàyyi mbindeef yi ci moom la mboolem sikki saaka yi di dëñëre ba tey nag moom seex al islaam mu ne yafu dana selle fois di sama xol bi wayaxlu dana kawe wala nga ne dana neexee alxaysu dund gi xii na badaa jamono ba nga xamante ne feeñ na rabion man weere ka nga xam ne yaxtali dana kawe bi xolaahu ci kawe gi mudaru giiru mudar bàyyi mu ne sama xol bi nag dana sell dund gi dana neex jamono ba nga xamante ne weeri rabu ëwal feeñ na maanaam weeri gàmmu feeñ na dégg nga du weeri gàmmu feeñee rek dégg nga mu ne sama xol bi dafay dafay sell mu ne sama dund gii dafay neex mu ne waaye itam giiru mu dar nag ci lañuy ci lañ kawee ci weer boobu du weer rabiul awwal nga xam ne ci la yonent bi juddu juddoom googu mu juddu ci la giiru mu dar dal di kawee mu dar nag maam la ci maamu yonent yaama salaay salaam làkka ñeel na ko alhana ak ndokkeel wala kulli xalqi ak ñeel bépp mbindeef yi maa talaat fekk fenk na samsur samsu suru sururi samsu sururi jantam mbétte wow ma ma lalla lëx la a fekk mu ne fekk feeñ na alxamaru weer bi bàyyi mu ne radiyalaanu fekk jamtëg mbétte mu ngi fenk rek bépp mbindeef war naa ndokkel yonent yàlla ma salaay sam di weer bi feeñee de lu tax nag nit ñi war di ndokkeel yonent bi salaay sam di weer wi feeñee ndax mooy cosaani bépp mbindeef lépp luy aji bind rek yonent bi salaay salaam moo tax ñu bind ko du nekk doon moom yàlla du bind dara de du nekkee ne nag yonent bi moo tax ñu bind àddina bi ak li ci nekk lépp waaw kooku nag weeru juddoom du teroo war nañ koo ndokkeel de ndax ndokkeel ko ci ngay yëgee yow yow yaay kan waaye ci nga xamee tamit yaay kan de ndax fan nga bàyyeekoo ci yonent yàlla sallallahu alayhi yonent bi fan la bàyyi ko ci yàlla di subhanahu wa moo tax yonent bi doon wax ne ana minallaahi wal mi nii man maa bàyyi ko fa yàlla waaye waaye gëm yi nag ci man lañu bàyyi ko de bàyyi ne dafa am bàyyi mu ne dafa am yar rek moo tax mu wax loolu waaye ñi gëmul sax ci moom lañu bàyyi ko de bàyyi mu ne suma salaatu topp ak julli wa taslimul ilaahi ak sëlmal ak yàlla ala muhammadin yàlla nekk ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa maa badaa fekk feeñ na albasaru mbindeef yi min sirri yi tukkee ci mbootu yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne radiyallahu yal na yàlla julli te sëlmal ci yonent yàlla ma salaay salaam fekk mbindeef yaa ngi mu ne mbindeef yaa ngi feeñ du tukkee ci moom de sallallahu alayhi mbindéef yi nag saa su nekk rek ñu ngi feeñ dégg nga ci feeñin yu uute di tukkee ci yonent bi salaay salaam ndax yonent bi ci moom lañ bindee lépp lu fi nekk kon li rëy ba bët mën koo gis ak li tuuti ba bët mënu koo gis nga xam ne pour nga gis ko sax ay appareil lañ ay mbindéef ak yàlla la te mbindéef yooyu ñu ngi leen bindee ci yonent yàlla salaay salaam yonent bi nag salaay salaam moom lañ bindee ci yàlla kon nag. xasida bi fii lañu ci yem ci xasida bi incha allah du ñëwee suba ñu indi xasida bi ci tegu. abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly. Dahiratoul Fadly kuñ war ngay sant yàlla ñun lañ sigil kese la doon si di baram.